Bonjour les amis internautes, ravi de vous retrouver ici euh, sur la télé TV. Nous sommes toujours en mode vacances. Nous nag euh, Alioune un joueur qui évolue au Portugal en Ligue 2 mais aussi euh, avant moi dem fii la championnat local bi jaar de Dakar Challenge du foot avant muy dem États-Unis def na aussi tourné européen jaar fi nga Lille ak Barcelone retourné euh, États-Unis avant muy signé fi nga xamné moy Balances Ligue 2 en Portugal mom lañu dajal gis ngeen ñu euh, donc aussi famille bi rek ak xarit aussi dañ leen jox régime d'entraînement yo nous mom la aussi compétition bi tv brothers on the rise now. qui passe ses vacances à Dakar euh, mom lañ fekk tay salle muy entraîné dinañ wax ay ambition dinañ wax la la nekk ñu nuyu. ça va 21 ans poste attaquant pointe international sénégalais ça va fay poste club aussi. Euh, ngi attaquant pointe mm. avant et je peux jouer aussi sur le côté. Euh, j'ai évolué Blenessad. Euh, L'année passée, c'était en D, 1 mais maintenant, on va jouer à D2. D2 Ok, vous ne fait que tu as mais l'entraînement mettre de <laughs> Ah, ce n'est pas évident, nous vacances avec Top uh-huh. Il faut que nous maintenions une forme et préparer la saison. Saison. Ouais.

mais parfois mënul ñàkk ma jàdd jël ay si ceebu jën ak yooyu noonu. <laughs> waaw yooyu mënul si ñàkk nga ñëw vacances aussi bu ñu nee vacances dañuy naan xarit bu ñu nee vacances aussi dañuy naan bi naka ngay passé sa vacances. journée bi lan ngay defee dama koy alterner parfois mun naa toog bu ma entraîné ba pare su fekkee matin soir laa def du ma gis sama xarit yi. Mhm. du ma dem mais su fekkee dama def benn séance damay noppal ba pare après ngoon bi mun naa dem gis sama xarit yi nekk sama famille et tout. après mooy loolu. mais temps bi bëriwul souvent parfois ñëpp aussi dañ leen di bëgg gis comme bu ngeen nekkee en Europe. yàgg fa loolu xarit ñëpp dañ leen di bëgg gis ak famille bi et tout naka nga koy dundee en tant que que ak ah, yombul yombul vu que am na ñoo xam ne les message am na ñoo xam ne yaakaar dañ la war a gis par la force alors que demeewul noonu du ñu comprendre ce temps yow noo koy dundee ak noo koy noo nooy defee sa planning pour fi ngay dem ak looy temps entraînement temps repos mhm. mais am na ñoo xam du ñu comprendre loolu dañ lay meree ci zéro. alors que ça vaut mais man maa ngi essayé di ko équilibrer. moom dafa nekk ki nga xam ne dafa am muscle trop mais gis gis naa loolu dafa am muscle mais il peine si ay euh, accumulation wu effort yeeg euh, tout euh, loolu genre manque d'endurance carrément moom moo koy def parce que su teglee effort yi carrément da ngay gis que ne dafay dafay dafay sonn bu baax baax loolu day soxla endurance bu doy et en même temps soxlawaat tuuti force tout. C'est côté endurance explosif même si ñu xoolee sax moom explosivité ça va carrément mais dañ koy gën di yokk du ko improve carrément améliorer ko euh, moom boo xoolee jetam ça va parce que ni physique am mel ni taayam ak euh, corpulence corpulence am et tout ça rime bien parce que que n'importe quoi lay lekk et tout c'est côté alimentation moom ça va il est bien très conseil <laughs> man amul lu ma mun naa wax de am naa lu ma ko conseil parce que ñëpp am nañ lu ñuy conseil ku nekk war nañ conseil war nañ la conseil et tout mais moom dafa nekk xale boo xamante ni d'abord moom xam na lu mu war a def ba peut-être que yàlla moom mooy def loolu si nit et tout mais yàlla dimbali na ko si côté boobu moom xam na lu mu war a def d'habitude parfois sa moom moom mooy ñaax si yenn affaire yi moom moom mooy yee na moom ñu dem ay tout et tout parfois moom moom mooy yeelu si ëpp so ok ak famille bi aussi temps yaa yaa ngi sa famille nga nekkal mois bi ou bien. non nekk maa sama tey euh, Aliou la fan la fan la fan la juddoo fan nga màggee sa école bi nga jàngee pour ñi nga xam ne aussi ñu ngi lay seetaan te xamuñu la. Euh, maa ngi juddoo Biscuiterie mais particulièrement NGB. ok waay parce que ñaatali waay ñaatali Grand Dakar Biscuiterie mais man si Biscuiterie bi laa laa juddoo laa defee sama lépp. voilà joué école football Abdourahmane et par la suite ma ñëw joué cadet deux ans après boum. mais jotoo jotoo jaar ñaari tali. non jotuma jaar ñaari parce que joué wu ma senior nawetaan. ok après par la suite laa dem Jaraaf joué cadet en état cadet ñu may classe junior ma def ben année après année bi stop Salam du gis ma recrutement ma ma fa. loolu ban année la woon ban année nga jaaroon jaraf jaraf 2017 2018 je crois après nga challenge. après deux ans et demi ou trois ans après par la suite États-Unis Loudon un an et demi après ma ok mais États-Unis contrat la le premier contrat C'est le premier contrat test soit bon non recruter signé contrat avant ok après nga jëm foofu noonu mais aussi defon nga tourner en Europe euh, parce que euh, jot nañ xam ne nga Lille ak fi nga xam moy Barcelone ay test nga fa jaaroon wala. waaye test la fa jaar jaar na Lille def naa fa 1 mois def naa fa test mais c'est c'est la vie <laughs> lépp mënul sotti à 100 wala mu ñëw ñëw ñëw rek sotti. xanaa mais mais jotoon nga fa parce que souvent bu ngeen door a dem ak euh, début bi day xaw a métti. ay difficulté wala. non parce que comme yàggoo fa. difficulté climat bi xam nga. mosuma dund affaire yu mel noonu genre climat bi métti woon na sama côté day sedd boole ko yu taw bu fekkoon sedd kese amul problème mais ak taw bi mu amoon habitude boobu noonu. mais géré naa ko génn naa si alhamdulilah. langue bi. mooy loolu langue bi amoon problème parce que français bi maîtriser woon naa ko mais man anglais bi laa doon après dama dem benn instant dama doon forcer anglais bi parce que mooy nekk sama langue tout le temps vu que États-Unis laa jógee di def tournée bi. Mhm. après dellu jot na nga delluwaat États-Unis avant ngay ñëw. non non après dama quitté le direct dem Barça def euh, une semaine après par la suite laa ñëw Sénégal def 15 jours soog a delluwaat état Barça aussi foofu test nga fa demoon test laa demoon waay ok club bi nga ne actuellement Ligue 2 Portugal Belenenses depuis yang ngi foofu depuis combien d'années maa ngi fa depuis année passée maintenant c'est un an et demi un an et demi mhm. club bi nekkoon Ligue 1 ñëw Ligue 2 naka la la def en tant que joueur ah yombul ah, te aussi neexul ngay jouer ci club mhm. muy wàcc mais football la ku nekk da ngay bëgg def équipe bu nekk dangay bëgg gagner maintenir sa équipe. première division mais c'est pas du forcer. jour bu nekk da ngay def li nga def mais après bu ñu waree wàcc buñ wàcc nañ. c'est ça sa intégration ak équipe bi. sama intégration début bi métti woon même jusqu'à présent sax mun naa parce que ah portugais bi dafa métti si man. mais yaa ngi jàng ba tey. maa ngi jàng waaye mais dafa métti si lu waral parce que musuma am notion notion côté portugais ay espagnol italien musuma am notion boobu noonu. français et anglais ba focaliser Et portugais la plupart même coach ça sax du ñu dégg anglais. ok ngay aussi poste attaquant pourquoi nga choisir poste attaquant est ce que mos nga a joué 10. joué le numéro 10. joué le numéro 10 j'ai excentré mais après quand j'ai commencé à laa j'ai genre parce que deux attaquants lañ doon joué léegi man parfois damay xaw a sàcc génn si aile parce que dama demoon dama tàmmoon loolu. man dama tam comme ça bu may joué damay free légui damay bëgg di free di dugg ci aile di dugg ci 10 bi dugg ci aile di ñëw. mais après par la suite bu ma sans na si lañ ma focaliser net ci numéro 9 bi. si numéro 9. Mhm. ren boo doon xayma tay sa bop statique jox not sa bop sa saison ren. maintenant maintenant parce que moo c'est une première année ma si Ligue 1 européen et adaptation bi mënul ñoo ñoo ñoo rek ma def flash boom adopté wu il faut que ma jassi ay euh, ay hauts et des bas après pour comprendre comment ça marche après me sog intégré wu mais alhamdulilah jiyee na saison normale. normal te aussi ma jeexaleeg si u et Et aussi foofu tam dama ko jeexal am beauté parce que vu que mënuma nekk équipe 1 équipe A après fin saison ma wàcc U23 te du ma performance wàcc naa foofu def naa sama performance saison bi jeex na la instant dañuy préparé waa Ligue 2 Ligue 2 préparé Ligue 2 mais aussi euh, ñaata buy nga dugal euh, oh. si année bi année bi dugal naa championnat des deux buts en coupe 1 mm-hmm. yeneen buts c'était en pré-saison waaye U23 di dugal naa tamit pour deux buts parce que trois matchs là ko joué mais comme que première saison la visite la et année prochaine Inch'Allah, nous ñu confirmer. faut parler beaucoup. bu est ce que vous avez aussi une proposition, propositions ce type de contrat aussi avec équipe bi. euh, sous contrat jusqu'à 2025 avec vingt équipe bi mais il y a des contacts mais. Je déglu sama agent ok mais pareegoo moment bi yow pareegoo pour pour pour da nga bëgg recevoir fii 2025. deux euh. ouais non pas ba 2025, mais. au moins su ma confirmé benn année après su may décidé de me me sauver ok tey nga jógee Sénégal euh, demain en Europe naka nga la différence bi aussi championnat foot local Il y' a beaucoup de différences, mais en tant que joueur en tant que professionnel naka nga vu naka nga championnats. ñaari championnat yi. si je dis vrai notre championnat les ñu ngi kii parce que am na yoo xam ne duñ ko doon gis léegi ñu koy championnat il y a du jeu il y a tout comme léegi maintenant en Europe parce que léegi bu jeu amul rek. Mhm. mooy loolu boo demee Europe da ngay am problème léegi et en plus foofu dafa gën faut gaaw foofu jeu bi du xaar kenn dafa gaaw mais question d'adaptation rek la boo adapté woo rek après ça passe. ok comme tous les joueurs euh, ñu si bëri tey dañuy rêver jouer en équipe nationale A est-ce que yow moment bi y a si est-ce que tu es prêt ak aussi attaquant yi tamit bari nañ fi y a beaucoup de concurrents. naka naka ngay dundee loolu. moment mais ku nekk ak sa heure ah, man noonu laa gisee ku nekk ak sa heure peut-être sama heure ñëwul e am na lu ma war a confirmer am na lu ma desal loo xam ne dama ko war a wane su ma ko wanee peut-être dinañ ma woo équipe A ah, mais incha allah sénégalais la xalaatuma dem feneen jouer feneen kudul Sénégal donc. sa bii bu gën a mag ren ba nga ñëwee euh, sa si équipe bi. man match nga gën jouer man moo doon match bi tu es à l'aise génn nga si à 100 cent dugal nga bi

après une avons saison bi ñu joué ak Sporting 0 mais 15 minutes fait après nous avons créé occasion de def Après, après la suite avons jëggaat un match le Sporting boobu filmé et nous avons ko si titulaire Sporting 0 après si avons un am coup rapide Je accéléré def par deuxième poteau mu def point fort. son point fort vitesse et puissance. puissance améliorer aussi sur le plan technique tey lan nga yaakaar ne war na ko améliorer pour gën a nekk ko topp. su ma doon premier touche parce que attaquant day soxla premier touche bu gaaw pour mën a dóor mhm. ah, malgré bonul sama bos bonul mais mu koy gën a améliorer gën ko liggéey ak dribble yeeg contrôle yi mooy loolu. ah attaquant boobu il faut ngay mën dribbler ah. waaye malgré damay dribble mais. du doy ah ibang ibang il faut gën ko yok ouais ok eh, nak ngay dundé fofu aussi ak supporter yi parce que équipe tamit supporter dañ koy yoré parfois jour bi raté supporter yi ñeu yoxu la saga et tout nak nga koy dundé fofu nonu ben suñu mo amul kini amul comment dire amul stress quoi parce que supporter ñun bëri wuñu ay supporter parce que suñu supporter équipe bu ñuy footballeur bu ñëwé ñom ñoo ñi ëpp fofu suñu stade donc amul influence bobu non supporter mais si réseaux sociaux yi nag am na ñoo xam ne mooy loolu parce que am na benn match jël naa carton rouge am ñu may envoyé message di ma saaga genre yooyu noonu. waaye ah di ma taggee di ma saaga mais ma xam ni. c'est normal lan moo waraloon carton bi. bon carton bi parce que boobu dama nekkoon maa ngi doon coach yi xam nga dañoo ñëw ñu changé ay coach après ah. maa ngi woon si banc bi ma retrapé wu wu ba ñëwaat titulaire léegi ñu mën a ñu 1-0 ñu égaliser ñuy joué ba quarante et une ma jël zone arbitre bi moo def sax lu ko neex parce que foofu zone boobu du zone mais deuxième moom mun naa normal boobu rouge la wala mu doon zone parce que waaj dafa ñëw ma koy protéger mu dal sama loxo après ma defaat ni sama loxo sama loxo dal ko mais mooy loolu. naka la la defoon psychologiquement. ah parce que bu ma rougé direct commencé woon naa xatraay foofu bu suñu joueur yi téye ah. mais xatraay ñu may téye après par la suite si la wàcc juste ñu dugal ñu après lépp changé. ok bëri tey. Euh, ku mel ni ay Sadio Mané référence la yéen comme ay Diao Baldé Keita ñu si bëri dañuy participer si seen développement commun, social et tout est-ce que aussi yaa ngi am ambition yooyu noonu di ko pour à l'avenir servir ce commune wala bon investir fii ci Sénégal. évidemment évidemment parce que sénégalais là, mu aw ma feneen fu dul Sénégal donc su may def Sénégal laa war a def waaye. lan mooy sa ay ambition sa ay rêve. samay ambition pour le moment first reyante bu dugg équipe nationale A après deuxième. Pourquoi pas être au top parmi les meilleurs joueurs du monde parce que le plus la. là. C'est mon joueur préféré. préféré pourquoi pas comme tout le monde Sadio Mane. Sadio Mane, c'est un Sénégalais. oui parce que je suis Sénégalais. Uh-huh. parce que quand j'étais jeune numéro, ngi mën a il ay Lewandowski ay Lukaku ay yooyu mais je suis Sénégalais ma sorte. parce que tu nga un aussi pour rejoindre le football. ouais. est-ce que c'était facile avec la famille non non non. non non musul yomb parce que sama papa d'accordul woon sama papa d'accordul woon sama yaay d'accord mais sama yaay après bu mu commencé gis maa ngi yeewu jël sama saak génn dem entraîner ñëw après mu gis ni man am na am na lu may def mais xamul lu ma lu may def carrément après par la suite si la si lañ ma sélectionné jaraaf ma bokk si joueurs yi ñuy jël après ma joué premier match ma dugal après mu xam ko si la ma commencé libéré bàyyi ma joué. paa bi kañ la kañ peut-être mun naa bi may waaj a voyage. mais je suis normal je suis normal pour me pour au football. ah bon Ouais. c'était pas facile normal jusqu'au du début à la fin Mon sama grand frère Je suis top ok mom mom mom soutenir côté ok Allez, donc lay aussi nga wax sa dernier mo ñi lay waaw bu si. invitation ak ah, parce que mais lepp xaju fi mais yàlla moo <laughs> mooy def te wax yi bu jubee yàlla la bu dëngee nag maa ngi jégalu incha allah. et di wax aussi que ñu rester en connexion avec 13 TV. Oui, merci.

continuer defoon nañu ak Formose Mendy tey ñu ngi ak Alioune Ndour y a d'autres surprises aussi yoo xam ne tey ñu ngi leen préparer donc restez connectés ak 3TV dañ leen nuy jaajëfal di leen jox rendez-vous à très bientôt Alioune merci beaucoup di remercier aussi Aljana Shop moom moo ñu jox ensemble bi nañu dem leen ngeen tourner te merci à bientôt les gars restez connectés merci beaucoup ok merci